grâce à un excellent match de Idrissa Gana Gueye sunu international sénégalais Everton actuellement gars yi génn na ci zone relégable maanaam zone bi nga xam ne non bu fa yàggee day wàcc ci deuxième division saa yi génn na fa mu ngi jël dix-septième waaw mu doon loo xam ne nii c'est une bonne nouvelle pour sunu international sénégalais bi sa Gana Gueye gañ nañ koo gis ci niveau bii nii nga xam ne ci la nekk nii. nga xam ne défensivement il est costaud mel ni machine fu ne mu dugg fa poxotalaan yeeg yaali jour yeeg fu ne lay dugg tey ji nag il a fait un excellent match mook compatriote am coéquipier am waaw doomu ndayam sénégalais waaye Belgique lay football ñu ko Onana moom nag tey il a bouffé militaire euh, Arsenal bi waaw waaw ca gabari bi njoolaay bi ci fulla beeg détermination beeg fayda gi gone googu kay dama koy jooy la tax ñëwul woon Sénégal sàggan nan ba bàyyi ko Belgique jël ko rek mu ngi noonee waaye tey Arsenal gis nañ ni Everton freiné na ko waaye victoire bu am importance ci Everton nag victoire bi mën na leen may confiance ba li des ci saison bi ñu continuer di dóor rek wala ñu bañatee am défaite bu ko defee ñu génn zone relégable bi mën a maintien même bi sa gànn kay ñëpp jàppoon na ne ñii wàcc nañ ba faw te yëpp ñu jógee foofu nekk ay tolof tolof Gana Gueye nekk woon ci forme Everton nekkoon ci ay tolof tolof ñu jàpp ne ne Arsenal bi nga xam ne mu ngi ci forme nekk ci lancé bu baax dafay fi daawoo leen tege leen à côté xooli leneen waaye finalement yàlla dëpp na carte gi Everton bi di sa Gana Gueye une bonne nouvelle pour eux ñoo gagné match boobee Arsenal nag gis naa ni seen joueurs yi commencé éclater gas nga gis ngeen la ma leen doon wax ca jamono yi lay weesu naan leen Arsenal yéene naa ko Premier League bi ci performance yu am solo yi nga xam ne def na ko ci début saison bi li mu wane dal xel neex xolu ñëpp koo xam ne faral nga ko ñàkk koo faral waaye li ko manqué woon mooy que Arsenal benn 11 la yore woon benn effectif kese la yore te effectif boobu imaginer ñaari nit wala ñetti nit yu ci manqué maanaam ñu blessé wala ñu euh, tegloo leen non mais mën na yàq jeu Arsenal bi mën na koo changer complètement li ñu naan on change pas une équipe qui gagne loolu ci yenn match détail ay coupe coupe FA Cup yeeg ñoom seen nga mën di leen tourner di teg ñooñu am na yenn match Premier League yoo xam ne nii du équipe yu mag a mag nga mën a teg tourner équipe bi teg ñoo xam ne nii ci deuxième ci euh, banc bi di nekk mais Arsenal benn onze bi moo nar a bi yëpp. balaa saison jeex na dañuy kalaate ñii dañuy blessé wala ñu sonn ba li ñu war a fournir ci match bi sax dootuñ ko fournir dafay metti kon nag li waroon ci ñoom mooy ko ñu recruter te gis nañ ne nag jot nañoo jënd deux milieux terrain yu am solo Tosaar ak ki ñu naan Jorginho waaye teewut tey jii ñooñu deuxième mi-temps lañ dugg teewut Everton dóor leen 1 bi à 0 kon nag gëm nañ avec le temps bu ñuy gën di tourner équipe bi di def ay euh, changement yu ci bëri yeneen joueurs yi dinañ mën di noppalu bu ko defee ñu mën a terminer saison bi am beauté seen lancé bi ñu jël ñu mën koo continuer nag Manchester City bi ma gis nii ah yaramam neexut de yaramam tàng na te te it euh, di ko may tarfatin ay ni moom erreur la mu ngi noonee gars yi Idrissa Gana Gueye leen xaar gars yi ci yi ba xam jàpp ngeen Arsenal mën naa jël Premier League boobee ngeen bindal